ok jongoma je disais man je loo bëgg ma defal la ko xoolal foo joxoñ dama koy dagg laa la wax. waaw dégg naa li nga wax mais dafa am lu ma si jaaxal. ah mooy lan noonu. xanaa gisoo ma tollu est-ce que antan nga ma. waay maa la gis nga naan ma lan man ragaluma loolu de man rëbbkat laa man. Jeanne touche na waaye dangar gang ngi ci biir de attention à ne pas provoquer un lion qui dort. Malik mon fils naka Wa père ça va hein, le djama, alhamdulilah. mais Malik combat si ton papa saw bi ni ko yàqee du yoon de. ah booy yi kay dañoo yabaate rek. man lima ma ci gën a métti nag mooy booy jour combat yi mais Malik. police senegal mom xana bu combat amé dañu leen di kidnapper ndax nga ñeme ko wax père boy dañuy agresser nit ñi def lu leen neex. mo man de keroog dama yaakar ni prison break lay seetaan moy ba xaritu Michael Scofield bi di sacc ciabi policier bi. Sucre la tuddu fogna naa Sucre Sucre <laughs> xam nga luma bëgg nga defal ma malik mo fils sama whatsapp bi nga defal ma ci réglage bo xamné suma défé statut sa yaay du gis dégg nga Per, kon yow naro jàmm de looy sama yaay say stati malik gona bu beugé gudd fan da ngay gattal la meñ ah mais Per, père dombu bu yaayam de man sama yaay momu la gënal de dombu bu yaayam mais yow xamna la malik khalis mo la gënal sa yaay mo la gënal sa papa suma la joxé ñaari jinn rek tëj sa meñ corruption wa ok baxna na indil tantaw yi dorul ko taf-taf xaral ma ñew def statut sama futur ñaareel da dem na yow statut naa ko mon amour I love you la ci bind allo mon amour statut na la dawal dawal dawal ga nga xol ko ala di mbul xoo un traître tu trahi ma cousine eh atuman yow la sama kër yow waxuma leen mu fi ñëwati Alhaji Mbëlxu Mbëlxu Hei, noppil ak sa lel bi di mel ni péage tudd ma mbuluxu sa luxu laa tudd mbuluxu mbuluxu gis naa sa ndumbe ma hey ha fàtte atuman atuman atumaan sama numéro Malik atuman mooy ndumbe boo roccee ndumbe da ngay rocci atumaan oh. waaw seetaan nga ba pare déet déet déet bul capal fi, capal bu ko defee vidéo bu bees bu njëkk a génn nga bokk si ñu ko njëkk a seetaan yow tamit <laughs> je vous aime I love you